les maires nak wax deug yalla dañuy lancer waat un appel parce que nak du ñëpp te boo jëlee les 98 wax deug yalla duñu ñu xëy ñu ngi moytu bu baax té texte yi nga xamné mo moo le domaine national dañ koy respecter bu ñuy def té reste dañ koy respecter faut pas que rek ñuy euh, pointer du droit au maire pointer du doigt au maire rek parce que le maire conseil municipal moko mom la nekkal té le conseil municipal représente la population

wax deug yalla euh, pointé wu ma kenn du droit waxuma kenn mo def parce que yëf yi mu ngi si loxo yoon yoon mo xam ka wax deug ak ka waxul dëgg presse bi rek wax deug yalla lañuy deug bo ba légui muy wax dégguñu les concernés wax deug yalla ñu wax exactement les problèmes bi ñu li la bëss bu ñu léré nak xeyna nañ ci si dellusiwaat wax leneen waye dañuy lancer waat appel à nos collègues maires ñu bàyyiwaat xel kat suuf souci euh, ñun nañu accompagner askan bi parce que mënuñ ko aussi jël jël suuf si rek tee ko noonu wax dañ ko exploité mais bu ñu ko exploité tam ñu koy exploité li nga xam ne moom njëriñu askan bi